salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna ñu ngi leen di nuyu yéen ñi safoo leeral TV émission bu mag bi di faqat maa ngi ànd ak Cheikh Tidiane ci caméra bi tey ñu ngi fii jàmm gën fii ñu taxaw mooy jàmm gën tableau Khadim lu ñu fi indi lenn la Siteu mooy waaj léegi léegi face to face digganteem ak Lac de Guiers jàmbaar production moo ñu fa woo di Mansour Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Siteu Lac de Guiers nag tey la mais maa ngi biir jàmm gën ñu dugg ñu xool Siteu nan la dëkkee ci gox bi maire yeeg paa ñu laaj leen nan la Siteu nekkee ak ñoom nga xam ne daa voyagé woon ñëw ba yalmin bi ñëwee lan la gars yi si moom état bi baax na wala te lan lay waajal ak Lac de Guiers lañ xam si digganteem ak Lac de Guiers Cheikh Tidiane topp ma ma dugg doxante ci gars yi yox maa ngi biir jàmm gën fii mooy Jamus. papa maa lay nuyu loo. maa la Diop la yaa ngi si jàmm. Diop. na nga def Leral TV moo la seet. ah Leral TV. Ah, tey dañuy def benn benn loo ñu mën a wax ci Siteu. xanaa yaru yaru baax yaru na baax na jox na mag cëram loo am itam mi ngi koy bokk ak mag ñi. ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mi am ndam te moom ndam yàlla na ko yàlla may ndam. mais Papa Siteu muy bëre koo xam ne ndaanaan la la dëgër jiitu ko ci làmb lool bëre champion yu bari lan nga koy wax ci combat boobu. waa xam nga lépp yàlla ko yor lépp yor mag nit taxul nga man ko olof yi dafa am lu mu wax dafa ni jëkkee taxut a mujje jëkkee taxatu mujje noonu daal li koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu guyu may nu ko may ko mboolee mu julit kenn bañ a gaañ sa morom ñu daan daanante ci jël boo xam ne jël bu leer la tamit sita ci barke yonent bi ah waaw <laughs> noonu la demee seeti yaan topp ma ba tey maa ngi ci biir dëkk bi biir jàmm gën doxantu xool jàmbaar yi fi toogee ak ni ñu waajee seen combat digganteem ak Lac de Guiers Siteu Lac de Guiers la wax du yomb le pongsor de waalo lay dajeel Cheikh Tidiane gars yi bëgg naa la de daf mel ni yéen a ngi toog de jàpp jaax kilifa gi nuy nga waa delloo ziar ci loo ne waaw ñu nii rek nan ngeen di waajee Siteu Lac de Guiers bi ak signature bi tey Siteu Lac de Guiers waaw ñu ngi koy waaj bu baax bilaay ñu ngi koy waaj bu baax a baax signature bi nag tey du yomb ndax bee passé ñu ngi wax naan dañoo daw ak yooyu noonu da ngeen a dawoon de daw ñun duñu koy daw ndax ñëwoo leen yow signé kay di ngeen war a tey da nga gis Yalmine bi tey yéen ñëpp xippi leen seen bët xool bilaay walaay mënu ma see sori nag ndax kar baa ngi nii dégg ko micro bi wax lu garaaw. Karba nuyu la. waaw maa ngi ziar de. ci loo ne. teew fa kay. loo may wax Siteu. lu bëri sax lu bëri doole. bilaay walaay bu ñu fi wax Siteu rek fi la ñuy fanaan. yalmin bi na de daa tukki woon ñëw lan la indaale. yalmin bi ñëw na andaa na lu bëri lu mun a daan la dëgër lu bëri doole sax. parce que yàlla la dëgër fu mu teg tàngam ko fa. lu la dëgër la dëgër. la dëgër la ñuy wax kay lifi fi ñëpp li fi ñëpp bàyyi jël daan ko lu kenn sul daan la ñuy daan lu garaaw laa lay expliqué de. confiance bi la dëggeen ngeen di bëreel war tiit naan ay lu fi ñëpp bàyyi la jël. mosu avance bañ ko lekkee ñu lañ taxalu ko tiit mosu ñoo tiit si àdduna lu dox ñuy tiit. lan ngeen koy yóbbante mu ngi seetaan. la dëggeer xanaa lan ngay wax. la dëggeer xanaa lan lay wax. la dëggeer su loolu say tànk nga xamante ne ni yow si bu dugg ci bi stade bi ci ngay gëj a am jàmm. bàkki sëñ Bamba foo teg sa tàng Siteu fekk la fa xam nga loolu nga a Siteu mais yow foo teg sa tàng a fekk la fa ñun niilu ñu taxaw ñëw suul tàng yi ay niil yi ay niil yi nekk ñu si de nee a fut Siteu taxaw mu nga fay fekk billaay wallaay taalaay su dina xam ne lépp la dina xam ne yalmin bi moo ñëw borom jàmm gën daf leen signature bi du yomb du yomb bu yombee rek ñu ñu bàyyi lu garaaw laa lay wax kon leer léppay leer incha allah. la demee noonu jëlal ma Siteu la ba tey ñu ngi ci biir gaay yi nañ dem topp ma ba tey maa ngi jàmbaar yi ku baax siyaar naa daloo siyaar ci loo nekk lépp jaamu kay nan ngeen waajee signature bi tey face face bi Siteu ak la de Guiers waaw Siteu Lac de Guiers ñu ngi koy waaj comme ni ñu ko doon waajee rek waaw def ndànk dal teey dem jëli luñu moom lu ñu fa am mais dégg naa da ngeen a dawoon keroog de mais tey baa doo leen daw daw ñoo ñun mosuñu daw jàmbaar dawul dafa wuti doole billaay walaay wa la dëgër li Siteu di nar sax xajul si kawam. la dëgër nee na pare na de lu Siteu indi fekk ko fa tey. yow xanaa xanaa doo xool Siteu mooy. yaay xool xoolal ma de Siteu mooy borom arab giran jamila maam arabiya. nga ni ma. déggoo ma xanaa naka tabaru tam maa xaza wa seef bu Siteu mooy borom. mais Siteu Diagne boo xamee lu waa ji làkk nga wax ma. lool lu ne la borom xubit ak watit mooy Siteu. billaay eh. loolu jamus bàyyi fa la yow. billaay walaay du yomb. loolu yow yow yow del xool rek del xool xippil xool rek nga xool. xippi di xool noonu la demee xale wax seen kàllaama la nee na ma xippi di xool Baye Fall nuyu naa la. waaw siyaar naa la. ci loo nekk. sant yàlla gu wér. tey nan ngeen di waajee bi Siteu ak Lac de Guiers. waaw comme ni ñu doon waajee yenn combat yi rek noonu la ñuy waajalee waaw comme yenn adversaire yu ñu daan am rek noonu la ñuy waajalee. adversaire yi ngeen daan am ak bii xam nga nu wute na. non wutewul benn la rek. bilaaxi Lac de Guiers faayam ñoo koy wane barki yàlla Siteu mooy wane faay Lac de Guiers ci làmb ji bilaaxi amul leneen ndam rek. wóor na yomb moo. mais maa ngi taxaw ak kenn di doom nday si def def nuyu naa la. maa lay siyaar. def ci loo nekk. sant bu baax kay ñu ngi sant bu baax. nan ngeen di waajee tey fes fes. waaw comme ni di waajee rek. waaw waaw di ñaan yàlla dem si jaamu ñëw si jaamu di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu surtout lool nañu yàlla suturaal bu baax a baax. mais coow li bari si te coow li bari biir jàmm ni si te na lan indaale bi mu. fi am moo fi am lépp. du def fànn kenn du ko jeex état lépp macha allah xaar mu jot rek ñu dem jëli ko. mais tey premier pas bi tey la. ah premier te ma la de guerre nee nañ keroog dañoo def face face te ñëwul lu waral lool. non nekk si ay mbir rek daam lu ko tënk rek mënut a ñëw rek loolu mais bu jotee tey day dem. bilaahi kon tey du yomb. ah mënut a yomb moom. nan la jaam a gën nar a génnee tey. ah si fair play dem si jaam ñëw si jaam. waaw waaw loolu boobu la waaw loolu ñu bëgg daal dem si jaam ñëw si jaam. topp ma ba tey maa ngi ci jàmbaar yi maa ngi jàkkaarloo sama benn maire muy ëpp maire maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay. yaay booy ne. xanaa di sant yàlla sant yonent ba. maire nan ngeen dëkk ak Siteu fii ci gox bi. ah xanaa dëkkin wu rafet rek dëkkin wu rafet rek ñu mat yaay ñu def leen yaay wax dëgg yàlla am na yar am na teggin. yaay mit am na yar am na teggin seen waa kër yëpp am nañ yar am nañ teggin bu koor jotee wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañuy jox suukaru koor waaw kon nag Siteu wax dëgg yàlla lu koy ñaanal daal ndam ndam rek lañ koy ñaanal ci barke yonente bi barke sëriñ Fallou ndax Siteu moom borom baax la tey taalu taalibe la wax dëgg yàlla. mais mi ngi bëreeg ndaanaan la dëggee. mi ngi bëreeg ndaanaan ni ñu dese yor nañu ndaanaan de ab ndaanaan la ñu yor de waaw waaw. koy digal ci combat bi xanaa kay mu def ndànk rek baña a parax paraxee combat tey tey rek def ndank rek waa man daal loolu laa xam naa nag la dëggeer moom bu xasee ba taxaw ba sampu moom du bouger moom. ñëpp loolu lañ wax de. du bouger. moom daal na tey rek comme noonu la dageer tey rek ba mu na teyee noonu. bu taxawee bu ñëwul si te na dem. na dem ñu dégg ñu dégg ko sëñ Fallou rek barki yonente bi ñu dem rek. tey muy def face to face diggante ma la dëgër ran ngay ñaax xale yi. Ah, xanaa ñu man ñaanal ñaan leen ñu ànd ki yar ànd ki teggin am yar am teggin man daal lool laa ñaanal xale yi waaw nañuy yem yem fu leen yem loo ndaxte am na yoo xamante ni violence baaxul ci dara ndaxte tamit yàqal ñu seen bopp de Siteu rek la ñuy yàqal kon nag nañu am yar am teggin man daal loolu daal laa leen di wax. nañu am yar am teggin jërëjëf yooyu itam jërëjëf yaay booy noonu la demee nee na ñu am yar am teggin bañ a dugg ci lenn luy violence ba tey maa ngi fii Siteu ak Lac de tey la borom café nuyu naa la kooku daw na caméra bi nuyu naa la yaay booy fay naa si jàmm sant yàlla bu baax yi alhamdulilah ñu ngi jàmm gën fii Siteu moo xew lay woote tey def face to diggante man Lac de lan nga ñuy wax ci Siteu waaw li may baax la Siteu doom ju baax la ku ñu yëg la ku am sunu yitte la daal maanaam kon nag ñu ngi koy ñaanal lii mu sumb nii yàlla may ko ci ndam lu sedd guy ci barke Cheikhul Khadim waaw. mais muy bëreeg ndaanaan la dëgër bëre fekk ku ne. champion bu ne bëre naa ak moom lan ngeen koy yeb ci diggante moom la dëgër. waa xanaa rek mu daal di teey te dal te daan ko jël bu set wécc daal di ñibbi fii mu jik ko na def na mu doon def na dal na teey te yàlla sunu borom may ko ndam lu sedd mu jikko mu muurloo ko moom ak njabootam ci barke Cheikhul Khadim. nan ngeen dundee moom ci koñ bi. waaw am na ak ñun ak jàmm am na ak salaam bu ñu rombee dina taxaw fii yaay na nga def nuyu ma safoo ma faale ma waaw xale bu baax la xale bu am yëg la man bañ na ko ba yaa booy la may wax kon nag man maay seen goro maa leen may jabar man may goro petit may ga. goro goroom waaw maay goroom. maa noonu la demee Seeti Jaan ba tey maa ngi ci biir. waaw mais siyaar naa la. doom day ci loone ne. siyaar bu wér a wér kay yéen a ngi am jàmm. tey nan ngeen di waaje. non ñun pare nañ bàyyi ba nga jàll si biir. tey affaire day dem. tey léppay ñëw. xam ma fii dara tuuti rek. non Lac de Guiers na toog kër ga rek. Siteu mooy ñëw ban ngeen ko indil ban ban laa gis tëgg boo xam ne indil ngeen ko Siteu. kii Lac de Guiers pour bëre ak moom. baaxu góor la. Ah. ku ne xam na ne laale baaxu góor la wala. loolu la loolu la Olof Ndiaye moom lañ ko indil ak mu toog kër ga. ndax jigéen moom moom yaaba. waaw noonu la demee nag. jigéen moom yaabo de. cey laale Lac de Guiers di nga laale de ba ma <laughs> taxaw noonu la demee Pablo Ra yaabo booy naa la fay nañ la ci loo nekk sant yàlla ci gerte gi de waaw nan ngeen waajee combat bi waaj ko bu baax a baax rek bu neex ndax Siteu moom jaral nañu ko waaw suñu doom ju baax la ju yaru du ñu jox cër di def lu ne nag ci nit ñi moo tax nañ il faut ñu waajal ko bu baax bu xewlee bi ngeen yëg sant rek di ko ñaanal nag mu mu gañe ci jàmm ak salaam ndaxte nag bu xewlee ñun ay jog takku di ko ñaanal ndam lu seddu guy la ñu bëgg ñun. muy bëri Lac de ciy wax. ah Lac de Guiers mbër la waaye ñu ne suñu mbër mbër la suñu mbër daal la ñu gis waaw. Lac de mbër la waaye yéen seen mbër ngeen. mbër la de bu baax sax di ñaan nag ndam gu seddu guy ci kawam dong nag. ca maire ñoom bu ñuy buy liggéey buy bëre moom ñun suñu léppay dox. ah buy bëre da ngeen ci gis seen bopp. bu baax sax moo tax dafa mel ni gerte gi jeex na da bii mooy ñaata saaf. bii mooy ñaata yoon nga saaf. <laughs> eh dama yóbbu gerte jaan. noonu la demee maire bi nee na bu Siteu di bëre dañ ciy gis seen bopp moo tax yaa ngi seeti jaan bi mooy ñetteelu saaf boo xam ni jeex na fi mooy jaama gën fi la lépp di xewee léegi topp ma ma dugg ci jàmbaar yi ci Baye Fall ci biir ñu wax ak gars yi. waaw bëgg naa la Baye Fall bi. ci loo nekk. sant alhamdulilah. nan ngeen waajee combat bi Siteu Lac de Guiers tey di signature bi. gars yi pare nañ de. sigil xol bi bis bi la ñuy bis bi la ñuy bu yàgg gars yi. est-ce que gars yi pare nañ. laa gars lu bees tàkk lañ jëndee mu ngi ci kaw taawal bi de. nga mu ngi dem de. am nañ cee ñam. appuage Malicounda bi xanaa yëgoo ko yow. Ah, ñu ko xool yow. man kay maa mel ku gumba. appuage Malicounda bi. paduwaan na bi bi. Ah. hôpital bu mag bi. saa yi fa de bala candidature je ah lat est yomb na Lac de Guiers le Pungsóor de Waalo kan moo daa ko xeex ci làmb ji kooku day taxaw dina bëgg dina taxaw làmb ji du ko daw billaay wallaay taala mu bëre non day day foog mu jàppante moog booy bi booy bi dafa dof de booy bi lu bees tàkk la génne bu bi ko abi bu nee prix bi ngeen xam ni booy bi Lac de Guiers dina toog gàlle bi mooy ñëw wala déggoo ma yow. tey bi ñu defoon ko ñu ni Siteu ñëwul ñenn ñi naan daa daw lan ngay wax ñooñu. non Siteu ñooñu ñuy wax noonu nag dañoo xamul quoi mais Siteu daw rek Siteu mu daw ñooñu tey lay xam ne nag lépp dëgg la tey lay bàyyi làmb moom tey si signature bi. <laughs> waaw wala déggoo ma yow wala doo xool yow. ñu lan ñëw booy bañ a ñëw nii sax moom moo ko engagé woon moom. Ah, kon ñëwoon première bi baaxul woon ci moom. baaxul woon ci moom day. ndax loolu ndax la muy nuwoon yëpp après fii lay jëm si jàmm waaw yow lan nga ñuy wax yow lan daf ñoo tee nelaw yow. dafa amu guerre ak moom. kooku du xeex du def dara kooku day taxaw. day taxaw xaar gars yi jàpp ko daan ko lamb ji du yàgg. nijaay. sifle moo ñu fa bàyyi yow. jeex na. tous si da kase lay topp topp ñu keneen. la de guerre du guerre te lu mu baax na nga ñeer. la de guerre. du guerre te lu mu baax na nga ñeer. la de guerre di champion di ndaanaan ba ñu woowee ko le Penceur de Waalo Siteu di dugg ci moom. waaye Siteu xam na ñëpp xam nañ Siteu fu mu mënee. la de ger waaye yow xanaa doo dégg kooku du ger te lu mu baax na nga ñaar sida kese lañuy topp tous ay daw joxal ma ne la de ger balaa moo bëreeg sida day jaar si tarkindaay ba pare. moom nan lay jaar tarkindaay. day xeex ak ñoom ba mu métti mu soogay dem si mu soogay dem si. la sida la de ger ne na mën na affronter tarkindaay yëpp. jaaxaluñ sax barki Serigne Bamba jaaxaluñu dañ koy jéggi dem suñu yoon billaay wallaay wa taala. yàlla min bi demoon ñëw dëkk bi mel nii nu ngeen koy yëgee. yow gisal loolu lekk yaa ngi xool teru lu si kanam rawali bët ni ngeen gis lu garaaw wóor na alxuraan. ñun moom la nuyu naa la. baabaal siyaar. ci loo nekk. waaw tawfeex lépp jàmm. si si ñu neew. face kooku du fee. pour kooku noonu. dawul suñu yaram sax. barke Serigne Touba Mbacké instant bis bu rafet bi la ñuy xaar rek matale yéene yi bu jaan ko ba tuun sens. nga ni cey jàmm dina xam ne lépp dëgg la. nga ni dina xam ne léeg dëgg la nga lag yow déglu rek gone yaa ngi ñëw de yaa ngi nekk ci taan bi di dagg sa yaram di feemu di saccagé wu nii dalal jàmm rek ñëpp a ngi ñëw si am na lépp loolu mënut xalaat rek jàppal ne mi ngi ñëw barki Serigne Bamba Mbacké instant hmm. amatul wax gem kese la ñuy def. si kanam nan leen nar duggee face face. fa nar duge duggee waaw mooy maanaam ñëw ànd ak sunu mbër comme ni ñu xamee woon rek ñëw xool lu rafet def ko nice xam nga dimbali suñu mbër am geste bu nice dawal ko. signature li ñuy signature daw génn loolu moo ñu ñor instant bi si yar ak teggin si yar ak teggin ndax loolu la ñu xamee ndax jamono yi dañoo toll foo xamante ne boo warewul yar ak rek xam nga bu yàggee yow après yow mbedd bi moo la koy wan waaw loolu nag kon tey jii bu ñu demee ba ne yar ak teggin da nga koy doxee di ko jëfee ñun loolu la ñuy doxee di ko jëfee ku gis leneen nag loolu yow la mais ñun topp keneen ku jul Siteu moo ñuy tax a toog fii guddeeg bëccëg barki Serigne Bamba ko am leneen nag teel. noonu la demee nee na topp ñu kenn ku dul Siteu ñoom nee nañ Siteu rek la ñuy topp ba tey Baye Fall yaa ngi ni maa ngi ci biir gars yi noonu la demee nuyu naa la. ah ñoo lay fay bu baax. ñoo ñooy dëgg fii Diamaguène. Diamos ngeen jógee ñëw fii. waaw waaw. wax si Siteu. Siteu mooy loolu kooku mooy loolu ko sax wax xam nga bu baax la ko war sax barki Serigne Bamba. laa rek am na problème de. na waaj. Siteu am problème ngeen la dëgër am na problème. kan moo am Siteu waay la dëgër moo am problème. barki Serigne Touba lii booy la dëgër day xaar lu bari barki Serigne Touba Mbacke bërëb bi dina ko duma daan ko. billaay wallaay la dëgër war a xeex ak Siteu. kan la dëgër la dëgër na taxaw rek du dërëm barki Serigne Touba Mbacke bu taxawee bërëb bi dina naaw si koom duma ko duma yu metti. billaay wallaay taalaay borom dëkk bee ay de Siteu waaye ana doo xool yow. nee na jàmm gën rek la moom. jàmm gën rek la moom non <laughs> ah, gars yow. la déggee wax noonu te la déggee ne mooy borom fépp. non la déggee yow. mooy Sénégal. non saa du xool yow. nee na Diamaguène. Diamaguène mooy Sénégal te le 19 lañ koy xam. Mbacke Serigne Saliou Mbacke suñu jugee nga xam ne jugee jàmbaar dafay jug. Siré boo demee président fii Macky Sall day toog xaar Mbacke alxuraanul karim Siré mooy lamb comme su bàyyi woon lamb te lamb day fay. billaay wallaay taalaay yal mi bari na de. coow li mu bëri bëri bëri fii mooy lamb lambul yàgg-yàgg day ñibbi si jàmm day ñibbi si na ba pare sax bilaa walaay tala jaamago mooy lamb jaamago mooy lépp bilaa wala ka Siteu kese la ñuy topp mooy na nga ko téye te le 19 le 19 dañuy xam ne jaamago mooy Sénégal bilaa walaay. Ndeye Siteu Mamoud bëgg naa la. waaw bëgg nañ ne bu yor laat bilaa. ci loo nekk. waaw ñu ngi nii rek ci lañ nekkoon. di waa yàlla min bi ñibbisi na de. waaw yàlla min bi gis nga mooy borom dëkk bi borom dëkk bi bu ñëwee faaw ñu abal ko dëkkam ndax dëkk moom moo ko moom dañ koo abal Macky Sall nii rek mais buñ ko soxlaa dañ koy génnee jël dëkk bi te instant bii nii dañoo pare jël dëkk bi téyewaat ko su loxo xam nga ne borom dëkk bi bu ñëwee moom ñëpp dañuy xam ne borom dëkk bi ñëw na. avant signature bi nan ngeen di waajee combat bi Siteu ak Lac de Guiers. non sa waay tey lay bàyyi signature tey lay bàyyi làmb. lu tax bu bàyyi lamb ndax dina bëre. yàlla mi ni ñëw dugg si ci biir dëkk bi. tey lay bàyyi signature tey lay bàyyi lamb dina bëri tey. gone nañ waajal te xam ne pare nee nañ bëri préparé day pare bu buñ sañoon làmb doon suba tarkindaa yi pare nañ nee na dañoo soxla dëkk bi te bu ñëwee ñu xam ne ñoom moom dëkk bi. mais signature bi passé nee nañ daal daw de. Ah, yow ñun dëkk day taa. ñun fu ñu dëkk day taa. suñu yaay di togg ci biir ndox mi. ñuy tegal ay briques di tëdd. tapetuñ lenn bu ñu ragalee dañuy ray sëriñ si Alxuraan mooy sunu sëriñ Siteu mooy sunu mbër. billaay walaay tarkindaa yaa ngi ñëw de. kon tey di yomb. yow xam moo waral nga ñàkk yow xam nga ne dara xew. ñàkk tooy xeeb man kay daa bari sama côté Cheikh Tidiane maa ngi ñàkk tooy xeeb. déggoo li ma laax yal mi nit yal mi laa nekk nag faaw ma ñàkk. noonu la demee nag gis nga tarkindaa yi mafia bépp a ngi toog di waajal dem signature bi ci jàmm di ñaanal mbër mi am jàmm ba bis boobu ñu jàpp ko def ko lu ko nit mësul def kenn mës koo daan ba mu jaaxaan. est-ce que dina yomb. fii lu yomb amul yomb marché ba rek lay jaayee te dañ koy lekk déggoo li ma laax liñ soxla ñun dañ koy jëli indi ko biir jàmm gën féetee ko. Mahmoud la. lu leer laa lay wax. baat mu ngi noonu. maa ngi taxawal Bamba laxasaay Bamba ci loolu. ay maa ngi nii rek ziar di. sama verre rafet na. verre mooy loolu yow yaa moom verre boo solee verre kenn sol verre. nan ngeen di waajee yalmin bi ñibbi si coow li bari lool. waaw ñun moom ñu ngi waajal sànq waaj ñu sax danoo pare ndax kenn àndal dafa pare mbaa Serigne Touba Mbacke du ñaan nag yàlla suturaal ñu may ñu dam quoi waaw du ñaan yàlla. la de guerre mën laa xàmme si mi nga verre. non la de guerre bëgg mu xaar ba jamono neex. waaw. mais loolu ñu mën a wax ci Siteu diggante mag Lac de Guiers. na jël temps jarul mi yàqamti dara waaw na jël temps tey bu leeree mu dem bu leerul mu xar waaw da Lac de Guiers du la pende Siteu dina ko daan jël bu rëy mu jaaxal waa làmb te du waa jàmm gën. mais Lac de Guiers nekk mbër boo xam ne moo gën a naqare bëreel ci làmb ji. Lac de Guiers li mu indi foosu ci lay tegu te yow li nga indi boo ñëwee nga fekk ci ko si li mu indi. Lac de Guiers naqarewul bëreel ñu mu doon bëreel ñoo xamul. mais la dëgër naqarul bëral la ñu mënoon bëral ñoo xamul te la dëgër si da koy weer. dégguma da koy weer weer. ci naka. wala la wax de da koy weer. defam da koy wane léegi. billaay wallaay wa taalaay. ma la ko wax fii bu taxaw ndax Siteu lan la war a def day song wala lu muy def. déggoo li ma la wax xanaa la dëgër Siteu da koy weer. day wane ay defam léegi léegi. xaa déggoo li ma la wax la dëgër. Siteu dina ko daan jël bu rëy mu jaaxal waa làmb te du jaaxal waa jàmm gën ndax waa làmb dañu umbale Siteu te waa jàmm gën dañoo xam Siteu laa la wax de. làmb xamaguñu Siteu. xamaguñu Siteu dañ koy làmb laamee nii nii nii rek mais xamaguñu ko. làmb jël dañ koy xam normal dañ koy xam normal na xam kii mooy yàlla mel borom dëkk bi bu jógee réew day jóg laa la wax de. mais le 19 ñëwagul tey face to bi jàmm gën mel nii mel ni tey la combat mais tamit réew mi la borom dëkk bi laa la wax de borom dëkk bi Macky Sall moomul dëkk bi Sonko moomul dëkk bi yàlla mil moom moom dëkk bi Siteu taalibe Bamba bi. waxal ak Lac loo koy wax. Lac de Guiers nee naa gorgo wanaa gorgo wala wanaa debbo. Lac de Guiers gorgo wanaa gorgo wala wanaa debbo. góor day nekk góor baa mu nekk jigéen te Siteu koo xool xam ne góor yàlla tikki la déggoo li ma la wax xanaa naa la Siteu day warak jasit di sang ñay. war gende war segg ak mbëfër dàq ñay mu daw nga naan koy jamono neex déggoo ma xanaa xaar mee ma ko ca tëngëj ah, tubaab bi nee na ko tingom si ngoom <laughs> tubaab bi nee na ko tingom lingom si ngoom Lac de Guiers dañ koy taawi ni si ngoom <laughs> si bu lool le Lac laa lay wax doob billaay walaay Lac de Guiers maanaam Siteu Lac de Guiers après bu Siteu pare si moom après la nit ñuy comprendre quoi lu garaaw laa lay wax. nan ngeen di duggee. sant yàlla rek moo la lii yombul quoi li yombul gisoo yow boo ñëwee fii nii mel ni suba la combat wala ginaaw suba la combat lii du dara après ngeen di comprendre li si kanam rawati bët lu garaaw laa lay wax. laaj ñun mbër lañu yor ñu tamit champion la yor ñu mu doon tànde mbër dëgg la ñu yor mbër kaamil xeexkat la bëre kan ñu yor te nee la mbër kaamil la ñu yor ñu mu tànde te Siteu Siteu yàllaa ko fal mu ànd dal ba toog lal ku ngay jéem galgal la dëgër doo doo ko tal déggoo ma xanaa yaa déglul nga ni Siteu waxal ko fal mu ànd ak dal ba toog si lal ku koy jéem a galgal la da geer dootoo ko tal <laughs> déggoo si taaw war gende war seeg mbëfër dàq ñay mu daw nga naan ko ay la da geer yow booy la da geer booy booy ay du weesu bàyyi deena de xanaa da nga dof ay du weesu bàyyi deena booy la da geer su saa bone laa ba ku ragal musiba doo falu de billaay wallaay wa te ñun jàmmagal lañ dëkk fu ndox mi di taaya lañ dëkk nag wax laa la wax waaw wax laa la wax de. DG ngi noonu DG Wëcc maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay la loo nekk ñu sant Serigne Touba bu wér. tey daf la wala làmb. noo tey signature la ku xam si xam ay affaire am xam nga dara yombul quoi bu ñuy signature dañu mel ni kuy bëre ji dëkk bee ko bëgg quoi waaw. mais signature coow li bari nii nga ñëw fekk fi mbooloo mu bari. lu waral loolu. waa sant yàlla rek ku xam si da xam ne affaire am ñoo ànd ak coow si da mënul def dara lu yomb si da lu mu def day neex mooy lu mu lay wax rek moom lu mu def day neex ndax lu nekk si moom xamul fu mu nekk si moom waaw lu mu def day neex te Baye Fall la quoi fu mu wootee ñëpp dañuy takk yi tey wuyu si ko. mais ngeen di bëreeg ndaanaan di bëreeg champion muy Lac de nan ngeen di waajee combat waa waaw comme ni ñu doon waajee yeneen combat rek lak champion la mee tamit ñu ay xale lañ quoi te boo xoolee avenir u làmb si te la gën a soxla ko la de Guiers wax dëgg boobu ba léegi mi ngi taxaw fu taxaw ko te ñun Siteu daa am lu ñu dig te loolu daf ñu ko war a indil mais kon loolu foog pour ñu am ko foog ñu daan la de te nekkul la de guerre sax ñun la ñuy bàyyi xel. dafa taxaw ñu bari umpale nee nañ Siteu lu muy ut si la de guerre ndax la de bokk na ci mbëri gën a naqaree bëri ci làmb ji fan la ko war a jaar. waaw dañ ko war a jàpp bëre ko duma ko daan ko comme nu ñu def yeneen sampion yi ndax tamit la deger sampion champion la mais pour nga gën a doon champion foog nga daan champion moo waral ñun ñu jël la de daan ko moo tax ñu jël ko du leneen te allah borom bi lu muy maye bu ko nanguwul la dëgër si dina ko duma dina ko daan. ana yalmin bi. yalmin bi mi ngi si ruxam di waajal. dégg naa ñibbi si na coow li bari. Ah, yalmin ab feña borom dëkk bi bu ñëwee coow li bëri barke alxuraani karim waaw ah. DG wëcc la. gaynde Bamba jàmm si yéen. naanaan yaa ngi woy naan si sita sita la. ñu ngi doon di jël ambiance bi. sita mooy waaj a génn pour dem signature ba. cey làmb ne la Siteu ngi noonu kaalawo moom it Cheikh Tidiane Siteu ngi noonu Siteu ngi noonu def kaalawu Cheikh Tidiane ndeysaan ma ngay saraxee moom Siteu jëmale signature ba Abdou Seck a ngi noonu yor benn kaan xeexee maire baa ngi noonu topp na ci yaay jaa ngi noonu ndey saanam tey doom ak yaay ma ngay ñaan yaay jaa ngay ñaan ndey saan oxo ndey saanam yalmin baa ngi noonu di dem yalmin baa ngi noonu convoi baa ngi noonu jëm signature ba xale yaa noonu di foo def kese. parce que sëñ Bamba si tay dem signature ba digganteem ak la déggeer la oh xale yaa ngi noonu ñu ngi way naan Siteu cey jàmbaar Pablo raa ngi noonu Siteu kase Siteu kase dañuy topp la ko tee noonu nee nañ Siteu rek la ñuy topp combat baa ngi noonu oho combat baa ngi noonu DG e wëcc bàyyi laat déggoo ma de lu bi rek la topp ñun topp ñu kenn ku dul Siteu. Combat baa ngi noonu. xale yaa ngi noonu. ñu ngi way naan Siteu kase. dongolo bak Serigne Touba moom dongolo moom leen jaral li billahi nee na taxaw nee na taxaw ndeysaan cey làmb lu la Siteu Siteu noonu Siteu noonu ci biir oto bi